jërë ngeen jëf ku sa yaxu bopp réer da jàll ñu ci parrainage bi l'observateur nañu deuxième tour contrôle parrainage yi démb la woon ca conseil constitutionnel ci ñaar fukki candidat ak ñett yi waroon ak ñaar ca ñoom ñoo yeneen fukki candidat ak benn yi des yépp l'observateur ne nañu dañu leen a tëye bokk ci ñoom Aminata Touré Abdoul Mbaye Bougane Gueye Dany Abdourahmane Diouf ak Souleymane Ndéné ci candidat yi ñu rëkkale ca parrainage ba l'observateur gis na ci ñoo xam ne fi la ñuy faxasu ci élection présidentielle ci réew mi limu candidat yi jàll parrainage yéenekaay bi nee nañu toll nañu ci ñaar fukki candidat ak benn ñu war lijjanti ji nag yeneen yi ci des ngir mën a bokk ci présidentielle yi 2024 yi liste bu candidat yi ñaar fukki fan janvier ca la koy xam Vox ñu waroon a jaaraat ca kanamu commission contrôle parrainage am na ci ñoom fukk ak ñaar yoo xam ne rëcc nañu ba jàll parrainage am ci ñetti ancien premier ministre yoo xam ne matle wuñu muy Abdoul Mbaye di Aminata Touré di Souleymane Ndéné Ndiaye ñoom ñett ñëpp faxasu nañu ci présidentielle 2024 ñoom ñett ñooñee newoon fi ay premier ministre di PM journal Le Quotidien ni mu leen tuddee mooy PM petit modèle muy Jules Ndéné di Abdoul Mbaye di Mimi Touré journal titre bi candidat bii di maître El Hadji Diouf la bokk jàllul Bougane Gueye ci la bokk jàllul Amadou Ly Akile ci la bokk jàllul ñu jàll ci xët mu njëkk journal bés bi le jour xooli fa li mu tuddee effet secondaire ci contrôle parrainage bi mi ngi ñuy wax it bi xaar état bu Sénégal ci organisation élection yi ak xaalis ba ca war a dépensé ndax ci élection présidentielle yi defoon nañu ci organisation élection yi lu toll ci fukki milliards ak ñeent te a dégg ñu wax muy Boubacar Camara di Déthié Fall di Cheikh Tidiane Dièye fukki candidat ak benn yi jàll ci deuxième tour contrôle parrainage enquête yéenekaay mi ngi ñuy baax secret yi leen may ñu jàll ñu jàll ca pale ba ànd ak yenn ci yéenekaay xooli ndajem remise drapeau bi amoon démb ci diggante président de la république ak gayndey équipe nationale football bi doon dem ci coupe d'Afrique ba ca Côte d'Ivoire le mandat nañu président Macky Sall jox na démb gayndey raay réew mi mu di xamal ne leen ni gi la yoon du manko wuti ndam li waaye manko wutiwaat ndam li lay doon record yéenekaay mel ba tax mu xëy bind ci ne gaynde yi mission conquête la ñuy defi ca Côte d'Ivoire la bind nañ jiitu réew ñaax na gaynde yi dojj na leen soleil national ne ko ba xamal leen ni fa ngeen nekk biit bu ngeen dugal xam leen ne ñun ak yéen ñoo àndandoo di ko vibrer suur soi nañu yamu ca ndax moom président Macky Sall gaynde yi bu ngeen fi indiwaatee bi di am neexal boo xam ne ku leen ko waxoon du ngeen ko gëm ñi tàmbalee neex ci ñoom ñooy retraités Casamanjou di directeur général bu Dakar Nav l'observateur xëy na ko dalal ci waxtaan wu yaatu ubbil yéene kay bi contrat bu ñaar fukki at ak juróom bi ñu séqoon ak état bu Sénégal signé woon ko atum mu war a jeex ci 2024 gi directeur général bu Dakar Nav ma nga fay leeral li waraloon contrat ba ak la ñu liggéey nee na bu Sénégal amul obligation ci renouveler contrat bi wala observateur ne ko bu ko renouveler luy doon conséquences yi Serge ne lakkati mburu yi ci réew mi di boulanger yi ak déggoo amul ci seen biir ne am na ñu ne dañuy dem ci gerew am ñu ne ñoom gerewuñu ñi ne duñu gerew bokk ci collectif national des boulangers du Sénégal seen njiit di Xaadim Silla mi ngi wax ci libération li tax bañ ne duñu gerew nee na duñu gerew te njëgu mburu mi kenn du ko yokku ci réew mi mu yokk ci ne boulanger yi ne dañuy gerew ay sàmba sugum gay lañu yoo xam ne amuluñu benn njariñ secteur boulangerie seen intérêt bopp ak i santas moo leen tax di aalu ak di ñu wax ci lu doy waat li ci page 8 bu l'Observateur El Hadji Diaby benn immigré la bu tribunalub Tamba tëj atu ndax ndayam ji ko jur yéenekaay bi nee nañu moom la jàpp dóor ko jam ko ba nday ji mujjee urgence ne ay xibaar mbootaayu taxaw fii ci réew meeg bitim réew ànd manko di sàkku ñu génne ci kaso bi Aliou Sané Aliou Sané mooy coordonnateur bu mouvement Y en a marre ñaari weer mu ne ci kaso bi ñoom ñu jàpp rawatina Mamadou Mbodj mi coordonnateur F24 ne euh, jàpp gi ak singili kese la euh, ci wàllu yoon waaye du lu mu def lu ko waral tey gi présidentielle 2024 ñaar fukk ak benn ci candidat moom wàllu parrainage gi ñoo mujj daal di jàll ci euh, juróom-ñeent fukk ak ñett des ca ginnaaw loolu kon moo tukkee ci liggéey bi euh, ñi kon euh, commission contrôle bi doon yeggale démb ci ci ndakaaru kuréelu boulanger yu Sénégal ak regroupement boulanger yi ñoom daal di dàq xalaatu yokk mburu mi euh, xalaat bu baax la bañ koy yokk ndax lu ko mooy sekkee nag njaween daañ daaj yi seen boulangerie yooyee duñu grève it ñu ne waaye nag ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu daal di doxale loi bi di wàllu réglementation yoonal gi ci secteur boulangerie ñu jàll parrainage boobee démb ci ñaareelu sumb bi maanaam ñi jàlloon deuxième tour euh, ci la ñu woon doon sëgg ci seen i euh, dossier jàll nañu fukk ak ñaar ci ñoom euh, ku ci mel ni Idrissa Seck Bassirou Diomaye Faye bokk na ci ñi nga xamante ni nag ñoom dañoo daal di kale ba beneen mm-hmm. ay ancien premier ministre ci misaal Soxna Aminata Touré Souleymane Ndéné Ndiaye Abdoul Mbaye ci lim bi kon ni ñu ko waxee ci mujjantal ñaar fukk ak benn ci ay candidat à la candidature ñoo daal di kon jàll parrainage boobe Mouhamed Jo fukki candidat ak ñaar ñoo jota valider seen parrainage ci kanamu commission de vérification bi nga xamee ne conseil constitutionnel moom la teg ci ñoom bokk na ci benn soxna muy Rose war Wardini gannaaw bi nga xamee ne ci euh, premier tour bi dañ ko woowoon waaye matlewul woon waaye tey jot naa am 45 301 parrain candidat yi di Idrissa Seck Aliou Mamadou Dia bu PUR Mohamed Boun Abdallah Dionne Mame Boye Diaw ak Bassirou Diomaye fay tamit jàll nañ Serigne Mboup niki noonu pap Pape Djibril Fall Mamadou Lamine Diallo Malick Gakou ak Thierno Alassane Sall mun nañoo continuer am yaakaar jiite réew mi gannaaw bi nga xamee ne bokk nañ ci élection présidentielle bu atum 2024 waaye ñi seen yaakaar jeex yem fii ci étape parrainage bi mooy ñetti premier ministre yi Aminata Touré Abdoul mbay ak Souleymane Ndéné Ndiaye waaye tamit avocat bii di maître El la Diouf ak njiitu awale Abdourahmane Diouf fukki candidat ak ñaar kon lañ jot a validé ñu ñëw dolleeku si ci juróom-ñeenti candidat yi nga xamee ne ñoo jotoon njëkk a li nga xamee mooy parrainage bi liste définitive bu candidat yi ñu jàpp na nag dinañ bokk ci élection présidentielle bi ñoo ngi koy xaar ñaar fukki fan ci weeru janvier bii di ñëw. jërëjëf euh, Mouhamed euh, Diop. Euh, Habib Sy kenn ci yooyu candidat ak euh, laam-laame gi ci am na euh, jafe-jafe ci wàllu yoon gu mën a dal di gàkkal nekkinam ne mbër mu ne loolee dara du ca lu wér ca it ay avocat am ci lu yàggatul dinañ ci indi yeneen i leeral ndax mbir moomee ñuy wax mbiram civil la gu ne ci ginnaaw maanaam c'est dépassé ñu teewlu ko Habib Sy ak Roxey Somb. que ñu dugal sama candidature xam ne j'ai été thèse. C'est une affaire purement civile qui est terminée depuis longtemps. On avait un différent sur le prix, tout simplement. J'ai pas condamné pénal, non. fay naa ko xaalisam oto bi sax mi ngi fii xaw ma lu koy def baaxut ba léegi quoi. Ça n'a rien à voir ma candidature. rien rien rien. c'est pas une condamnation au pénal. affaire civile xaalis bu ma prix bi d'accord ñu ci woon man maa ne ko dama tribunal. ça n'a rien à voir avec ma candidature. mënul empêcher nullement. nullement nullement nullement. Habib Sy kenn ci kilifa yi taxaw ngir doon mbër ci ak njiitu réew 25 février 2024 ñu dem ba euh, diwaanu Njaareem euh, ak ñi ne ca kaso diwaan ga euh, tàmbali woon ab xiifal demb juróom-ñeent fukk ci ñoom soobu woon ca bër ki demb la sax waaye démb ci suba. lañu dakkal mbir yi euh, ñu fàttali ne lañ doon sàkk ñoom ñoo ne ci kaso bu njaareem mooy ñu dakkal yàggaay bi ci wàllu téye ca àtte du am euh, te it euh, seenu nekkin ci kaso bi it ñu gënal ko yeneen waaye ginnaaw waxtaan ak procureur bu diwaan ga ñaari juge d'instruction ak gouverneur gindiku mujj na am ba ñu dakkal boobu xiif ñu nekkee woon leeral li sunu ndaw foofu ci Diourbel soxna alimatu Sarr kuréel ak boulanger yu Sénégal ak regroupement boulanger yu Sénégal décidé nañu maanaam dogal ñoom it bañ a dem ci grève bañ a yokkit ñi ko mburu mi waaye bu nu sañoon kilifa yi président Sall rawatina euh, jàppale leen ci doxale gi ñeel loi bi di wàllu yoonal ñeel secteur boulanger yi Abdoulaye Ndour kuréel bii di collectif national des boulangers du Sénégal CNBS ak regroupement des boulangers du Sénégal ñoom nee nañu bokkuñ ci grève bi nga xamante ne fédération nationale des boulangers du Sénégal moom moo ko woote ak it ñu teg ci ne njëgu mburu bi nag dara du ci soppeeku Xaadim la di président CNBS. ñuy duñu grève te mburu mi euh, duñ ko yokkul euh, conseil bi li mu tëraloon ci prix mooy cent soixante quinze cent quatre francs deux ñun moom lañu tënku. ñu ñaan naa ki nga xam ne mooy président Macky Sall ngir xam ne mooy décret organisation di boulangerie. li bëgg décret bi nga xam ne président ñëwoon na ko en ñu appliqué ko ndax décret bi lépp mi nu ñuy jaayee mburu mi nu ñu koy defaree ak nu ñu koy taxawee ndax ñu ngi perte tamit francs par baguette ci vraiment intermédiaire bi seen décision bi neex na loola ñi nga xam ne ñooy consommateurs yi ñuy ñaan yeneen association boulanger yi ñoom tamit ñu bañ a une très bonne nouvelle j'espère que xibaar bu neex la ñu yaakaar ne yeneen baax ñuy félicité collectif di leen xamal ne du am grève te tamit du am euh, yokkute ci njëgu mburu mi. pas de grève et qu'il n'y aura pas d'augmentation du prix du pain. SNBS ak RBS di ñaan état du Sénégal ngir ñu accompagner leen ba moderniser seen secteur bile ba yeesal seen métier bile ci ay jumtukaay yu bees. jërëjëf Abdoulaye Ndour commerçant yu marché syndicat ci mbuur ñoom ànduñu ci dogalab gouverneur Ndakaaru jëm ci wàllu euh, tere ñuy daal di yebbeeti seenum njaay fële ca marché syndicat wala fu ci mel euh, ne moom waaye léegi xam ngeen ni dogal bu bees bi jëm ci wàllu marché d'intérêt national ba ci jam ñaajo groupe porteur yi fa la ñu war a yebbee loolu nag ñoom waa syndicat Mbour ànduñu ci du lu leen jubu euh, loolee nu wax Ndeye Mati Dieng mesure boobu moom ñoo ngi lay ñaan gouverneur teg ko ci suuf du luy mën a propice baana baana yi nga xamante ne ñoo nekk ci marché syndicat bu Mbour ñoom ñëpp daal di jug taxaw ne dogal bi li nga xamante ne gouverneur bu Dakar jël na ko te muy ne camion yi dootuñu ak agsi syndicat bu Pikine ñoom ñi ànduñu ci Mouhamed Lamine Ndong mooy seen njiit ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg loolu mu xalaat bëgg a may doole directrice marché boobu marché boobu compétirul ak ni sunu liggéey terewul nag ñu jàpp ne marché d'intérêt national bi lu baax la dafa fekk ne rek àndul ak seen liggéey bu ñu sukkandikoo ci Mouhamed Lamine Ndong ba tey. c'est beau loolu investissement boo xam ne ñoo ngi ciy tàccul bu baax président la république yéene la am. yéene bi mu am ba tax mu euh, tabax pont feeñee nga xam ne suñu sarse oto ba fees ñu ñëw directement ci vingt quatre heures liggéey boobu mu def lu rafet baana baana bi yëpp applaudir ko gouverneur bul yàq liggéey booba ñu laaj leen ci gàllankoor yi li nga xamante ne ndogalu gouverneur bi le mën na leen koo jural Mouhamed Lamine Ndong di ci xuus di sàkku itam ci boobee gouverneur mu daal di xoolaat bi bile dogal fii lu mu laaj soo ko chargé tëj oto bi na def destination direct ca place bu muy bu war a dem su dee fruit moo ci gën congélateur chambre froide baax na c'est très beau waaye dafa compétirul ak fruit day nor secteur bépp lay boole bëgg a rey ñuy ñaan gouverneur de Dakar mu delloo mesure boobu teg ko ci suuf. moom ak ñi muy àndandool di jaay fii ci marché syndicat bu Mbour ñu ne ginnaaw bi la yoon ñu jàkkaarloo ak dina ñu wax ak seen naataango yi nekk ci Sénégal wërngal këpp ngir daal di xool ban jéego la ñuy tegaat Ndeye Mati Dieng Mbour rajo Futur Média. jërëjëf soxna Ndeye Mati kuréel ak euh, interministériel agent administration Sénégal ñoom it di dem ci grève lu bëgg mooy ñu saafara seen i tawat yi ñu tegoon ci taabalu kilifa yi ba leen ci gën a ñor mooy wàllu ndàmpaay logement di dëkkuwaay Oumar Xaame ak i naatangoom di xaarab audience ndaje seen digg premier ministre bi ñu jàpp ne sax dafa yéex a doxal lii di ndigalu président Macky Sall ci conférence de presse la ko xam ne démb ci teewaay soxna Ami Ngom ngir RFM. am na ñoo xamante dañ leen a war a jox indemnité de muy ndàmpaayu dëkkuwaay. ci a ñi di ñaawlu ab ñàkk tolloole ci wàllum ndàmpaay yooyu Mor Diouf topp ci ki jiital mbootaay gi lee location bi seer na trop ci Sénégal te bu seeree ci liggéeykat yépp lay seer kon état di Sénégal bu jëlee dogal jox ko téeméeru liggéeykat yu ne mu jox ko juróom-ñeent fukk yi bàyyi fukk yi des dañuy jàpp ni loolu ab xàjjale la ab boddi la ndigal yu njiitu réew mi joxoon ki di limaanu jëwrin bi ñell seeni jafe-jafe yooyee ñu ne nag ba jamono ji du dara luñ ca jëfee premier ministre monsieur Amadou Ba Sénégal dafa nekk ci benn contexte bu particulier muy contexte pré-campagne kon looloo tax ñu def suñu pexe yépp pour que mu recevoir ñu xam président de la li mu ko santoon naka la koy jëmale ak fan la ci toll loolu la ñu mënta am. yi liggéeykat kon dàq ñu benn yoon soo xel administration bu Sénégal su fekkente ni amuñu la ñu bëgg. danañ dem ci la soobu ci grève généralu administration bi muy 22 ministères yooyu ci semaine bi danañ déposé tamit déclaration de marche muy dox doxu ñaxtu. ci juróom-ñaari poñ yu doon seeni jafe-jafe li moon ci lim lu ñeel seeni carrière payooru prime ñeel chauffeur ya ak li ñu duppee statut de décisionnaire ak yeneen ak yeneen i poñ ñu ne nag benn poñ képp lañ ca saafaraal muy rétroactivité gi ñeel classement wu diplôme yi. di di tekki ñu waxtaanee sunu métier mi di tasam xibaar rek càkkute fu njiitu réew mi président bu sañoon mu ne ñu wàññi Ablaye Lele. Euh, lii di xorom seek ngéwale geeg yeneen ak ci bokkul fent geek yooyu moom sàkku na ko ci kilifay presse bi ci jamonoy euh, mu jiite ko teewee cinquantième anniversaire cinquantième assise internationale la presse francophone mbootaay googu ci pàttali euh, doomu Sénégal suñu naataango Madiambal Diagne moo ko jiite ñu teewlu président Macky Sall ak Abdou Diouf Diagne. de toute évidence le cours des choses a beaucoup changé. lu ci man di xew faaw ngeen xam ne nag métier journalisme ni na ak wuute. boo koy xool nag fii ci Sénégal man xam ma sax nan leen leen war a mën a tuddee am na ñoo xam ne dañuy def li ñu duppee xeetu revue de presse man sax daanaka théâtre rek laa koy méngale war nañ ko wutal aw tur nag loolu sax maa ngi koy sàkku nag ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngale yi fara ci sesti ñu xamal ñu daal loolu ban xeet la bu dee nag ñu jéem koo yoonal xeet woowu xeetu mbir yooyu moo tax ñu falu du ma leen tudd nag ndax am naa ci ay xarit waaye daal xeetu doxalin ci wàllu tasum xabaar bu yees du ñu joxe benn fee dañuy jël ab titre di ko lire ci na fajar gi ñu génne ku nekk di ci wax dem ba tànqal nit ñi sax ba dëgg sax faf réer ci loo xam ne nag man daal gisuma benn yoon njariñam alors il y a aucun fait c'est on prend des titres on tôt le matin et ça fait l'actualité. Pignon, le public est agressé à longueur de journée. RFI Sport. tàggat yaram Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi lay fay Ajasan bismillah ñu door ak équipe Sénégal bi yegg nañu si euh, réewu Côte d'Ivoire démb si guddi lañu daal di yegg ca fañ leen daal di kon dalal xale yi nag euh, dal nañu kon ku ci nekk jël sa euh, dalukaay waajal ngir soobu ci liggéey bi tey lañ koy daal di foofa seen jongante bu njëkk mu ngi am fukki fan ak juróom ci weer bi nu ne seen diggante ak waa Gambie lay doon démb ci palais bi jotas nañ leen fa jox raaya réew mi boo leen ko joxe ba noppi Sadio Mané di kenn ci ñi gën a fës ci équipe bi yëkkati na kàddu wax ni leen di xaar ñoom xam nañ ko te xam nañ ni fa jëm itam du nekk lu yomb ñu dul ko ci micro Soro Thiam wax na lu mu lu ñu war a wax ñun tamit on est conscient de de ce qui ce qui nous attend là-bas on sait que ça va pas être facile mais comme on l'a dit euh, euh, tout est possible et je pense que ce qui est sûr est qu'on ira là-bas on fera tout notre possible et euh, pour pouvoir conserver le le titre euh, le titre comme le président l'a dit manko tuwaat ndam li donc je pense qu'on est ici on, on fait comme on l'a fait la fois passée de souder essayer de de prier tout le monde euh, donc loolu rek laa leen di lancer comme message ñu nekk suñu ginnaaw supporter ñu après ñu wax ni itam xale yi gaañu woon ñoom dañ leen génne ci équipe bi léegi Bamba Dieng dem na ak Alfred Gomis fekk leen foofa ca Côte d'Ivoire groupe bi daal nekkaat ñaar fukk ak juróom-ñaari xale yor a teewal Sénégal Cameroun tam bokk ci poulu Sénégal moom da doon jongante xarito ak waa euh, Zambie ca euh, foofee di réewu Arabie Saoudite ñoom ñaar ñooñu nag jot nañu kon amal seen jongante ñu daal di def kon tembo ku nekk am benn ci sa euh, kangi morom ci wàllu amical yi ba léegi jàppale ni Algérie moom jot na Nogoto Burundi ñeenti bal si dara la ko dajji dóor Algérie di waajal tam bokk ci ñuy xaar ci bile Coupe d'Afrique si wàllu footballu Sénégal Ligue 1 bi Jaraaf moo nekk léegi leader gannaaw ba mu demee démb ca Fatick door fa jamono Fatick ñaari bal si dara Jaraaf képp mooy équipe bu amagul défaite bi championnat bi dooree ak léegi ñu toll ci fukk ak euh, benneel bi journée Malick Daf moom mooy entraîneur bu équipe bu jaraaf bi nii nag euh, poñ yi mu am ci bitim réew ci biti euh, poñ yooyu poñ yi am solo la ndax euh, boo génnee loo for rek da nga war a yóbbu kër ga ngir gën a mën a duufal sa gafaka ñu déglu Malick Daf sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin yombul woon waaye yàlla defal nañ jàmm parce que dañu doon jouer adversaire bi nga xamante ni man xam nañ ñëw fi jouer yombul mais ñun ci entame match bi dañ teg le pied sur le ballon jouer au pressé je pense que essayé nañu combiner un deux trois fois ci première combinaison deuxième bi ci lañu am chance dugal premier bi après gis nañu benn moment équipe taxaw na bousculé nañu mais aussi ñun tamit bàyyiwu bousculé ñu mais à un moment sama gosse yi tamit ils sont restés concentrés restés costauds je pense que sant yàlla parce que li ñu doon wut si yàlla may nañu ko mooy ndam ci wàllu euh, Ligue 2 bi euh, jëm itam si jeexitalu fukkeel bi journée ak benn démb douane moom moo dalal ba noppi daan Oslo benn bal si dara ajasen gi <laughs> jërëjëf <laughs> di ñaan yàlla petit Golbert ba ñu laa jël ci jikko <laughs> dëgër bopp 8h21. ak RFM. kumpa jeex na. chronique culture beeg Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi. gannaaw fes nag altine ñetteeli édition salon national du livre ubbi na démb ca Fatick njiitu réew mi Macky Sall daal nañ ko fa euh, sargal ñi yëngu ci wàllu secteur livre ak édition bi nag am na ñenn ci acteurs yi ñoo xam ne daal di leen sargal itam Salamata Ousmane Diallo ca Fatick. Macky Sall moom la ñuy daal di sargal ci ñetteelu édition salon du livre national ki nga xam ne moo fi nekkoon jëwriñ bi ñu dénk wàllum culture di Abdou Latif Coulibaly ci leçon inaugurale ni njiitu réew mi daal nay def ay jéego yu bare bari ngir daal di gën a dëgëral caada cosaan ci Sénégal. Euh, développer et mise en place pour les secteurs la culture des mécanismes et des moyens qui ont permis à ce secteur d'être davantage et d'apporter plus à euh, un processus de construction de l'État. Aussi, souvent, le coût du cas est passé à 1 milliard, au départ 1 milliard est passé à 2 milliards. téere jumtuwaay la ngir élèves yeeg étudiants yi daal di mën a amal seen ay saytu ba tax sax nag ñoom ñëpp dañ ci war a daal di mën a cotees bu ñu sukkandikoo ci jooni bi ñu dénk wàllum caada ak Sow. am naa bu baax a loo xam ne mooy wàllu téere ndax rek njuumte bëri réew moom. fukk ak benn acteur ñoo xam ne dañuy yëngu ci wàllum littérature ak culture daan lañ leen di sargal ngir seen njàmbaarte bi nga xam ne ñu ngi koy daal di wane ngir sukkali caada cosaan alxuraan mam astu ñang moom moo yor bu Joal mu nekk ci ñaar fukki at ak juróom di ci liggéey te fayeeku ci dara. depuis avril 99 laa nekk ci première distinction. <laughs> national ren ñu ngi ko daal di fësale ak dévoilement benn livre mobile daal di tudd Macky Sall de la philosophie de l'action à l'action de l'émergence waaye tamit jeexale ko ak prestation slam ak champion d'Afrique bii nii. di William Kalanas Mendy Salamatu Souman Diallo Fatick rajo Futur Media comité de veille pour la mise en œuvre de la rémunération de la copie euh, privée fii ci euh, Sénégal ñoom am nañ mbégte lool gannaaw kàddu yi nga xam ne moom le président Macky Sall yëkkati altine ci cérémonie euh, d'ouverture fukk ak ñaareeli édition nag ci gis-gisu comité boobule li nguur gi taxaw ngir kon ñu daal di tàmbali doxal lii di copie privée bi nekk na lu am solo ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex at angi nii dina tax itam ñu gën a mën a jox cër artistes yi rawatina ci seen wàllu ak ak yelleef mbokk yi fi la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax.